tàmbaleeti te wax le feeti te xam le feeti njariñu màggal ma tàmbaleeti te wax le feeti te xam feeti njariñu màggal ku jug di màggal di yàlla màggal la màggal danañ la jiital ma wax la màggal gi yàlla màggal nekk ko màggal danañ la màggal li Bamba woote ne buñ ko wuute digle ci bernde looloo di màggal 18 safar mi ku ci réew mi xam na ni moom mi rekk di màggal Itaali xam na Faranse xam na Almaaña xam na lan moo di màggal waroon na kon tey gonta kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal waroon na kon ñuy gonta kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal murid yi jug leen waa ji safar yéen ci bernde ak ñaan ñu jekku màggal waroon na kuy ñëw Tuuba fa muy aw ñam ya kay aw ci barke màggal ñu yóbbu ñam ya ci hôpital ya ak prison ya ci barke màggal sëriñ bi aw ñam la digle kuy dem na yóbbu aw ñam bernde ci màggal képp ku màggal bis bii di màggal màggal gu dëggal des na la fonk ko moo war ko moo ku ko deful wor ki woote màggal bamba danoo moom amun ku dul moom toppi ndigalam te fonk màggal fépp fu mbooloo daje di booloo nañ jéema booloo waxtaane màggal fépp fu mbooloo daje di booloo nañ jéema booloo waxtaane màggal ca gënu rëy nga nekk fii xëy ba bis ba doon tey ngay gan ci màggal ganaar gëléem xar nag ak bëy ak jur loo am ci jur du doy ci màggal gëléem ji bul yéem nagit jarul yéema bul xeeb ganaar ndeem moo sës ci màggal loo mën a rendi rendi ko bernde màggal gi bernde mooy mbir mi berndeel bul ne jigéen la te bul ne ndaw la ak sant yàlla bawul ku am xel te sant yàlla ak jaamu yàlla ak dawlu ban la rekk di màggal sant la leen ma yàlla mi may ma lépp te jox ma bis bi di màggal ku sant dool leen di ñëw te dool leen lu yàlla dug neen leen nañ fonk màggal ku dëkk Tuuba na fonk bis ba yaatal xolam ba ganam ña dal ku dëkk Tuuba na fonk bis ba yaatal xolam ba ganam ña te wàcc lali te génn néeg dugg ci waañ yi te jéem a suural lépp lu saf neex wuti ka tey ruux soowum dax laax fajaru màggal ataaya naana ko mag banaana kokook ananas waajal ko màggal kafeeki suukar fantak ko kanjar luy dem ci ab biir waajal ci màggal ñuy afara ay xar defar ka bam ñor di dana lay wër moo baax ci màggal wutal ginaar saaf te roof ka bam saf boole ca ay yëf ci bésu màggal lépp lu sedd neex sell tedd